maa ngi profito balaa may tontu question yi mu nuyu suma mag Johnson Mbengue bi nga xam ne moo fi représenté tey APIX APIX nga xam ne dañu bokk ci suñuy sponsor leader ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier le DG Abdoulaye Baldé ñu ngi koy nuyu bu baax suñu sœur Jacqueline Fatima Bokoum bi ñu ñëwee seet si leen dañu wuyu jàpp ci projet bi di remercier aussi wa sokosim di nuyu le président yugo Sow moom biñ ko setse ak Sococim dañu accompagner jàppale ñu di nuyu wa Air Sénégal Air Sénégal muy sunu avion di sunu compagnie ñing leen di remercier ci tourou le directeur du marketing monsieur gay di remercier aussi wa CDC suma mak Cheikh Tidiane Ba grand merci di remercier Petrosen suñu grand Manar Sall ak wa Sénélec suñu mag suñu xarit Mobite. Demba bi tey jërëjëf waaw di ñëw nag ci question yi di ziare suñu sœur te mu nekk ITV ITV muy Jeba Jeba maa ngi trop question bi ma laaj bi Yek ce le ci man loolu waral ma def premier titre ci album bi ndax album bi yep, dama ko way mu refléter sama image ak sama personnage li ma rek la génne dama sétlu né Sénégal euh, respect des na yi war nañu déggal jox leen cër respect mag aussi yërëm gone ndax bu ak expérience bu ndaw bi ñu may dañuy gis ni que dañ Sénégal c'est un pays stable jàmm jaa fi sutura saa fi réew mi réewu et que à chaque fois j'ai l'impression que ni loolu mi ngi dem léeg-léeg ñaari nit joté nga dégg ñu né meurtre amna ci soit qui, sagana ki qui. sagana ki respect du am parti politique yi aussi ndax actuellement réew 24 heures sur 24 waxu politique rek lañu wax té dafa jot ñu concentré wu nous la jeunesse sénégalaise ndax su ma les 80 de notre population c'est la jeunesse. et ndaw mooy dooley réew waaye nag ndaw pour mu doon dooley réew il faut mu jàng am xam-xam ndax dama gëm ni réew buñ koy teg ci ay loxo dañ ko war a teg ci ay loxo yoo xam ne ñu ko war a yore am nañu xam-xam ndax xam-xam moo ëmb lépp je me dis ni comme que aw ma chance pour yeggale sama jàng ci mbedd mi laa yaroo waaye am naa expérience su mbedd mi sama métier permettre na ma may fréquenter façon nit bu né may fréquenter agresseur bi di fréquenter euh, intellectuel bi di fréquenter commerçant bi di fréquenter nit ku nek ku nek nak dama tatane ci yow ndegam way aduna bi bo waxé ñu né Sénégal réewu jamm la kon jamm joju sa su dañu war a li fi maki muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi li fi nit ñu baax ñi bàyyi léop ñoom Léopold Sédar Senghor ñoom Lamine Koura Gueye ils ont marqué l'histoire et que nag comme que dañ ne ñun ay leader d'opinion lañu am nañu ay fans yu ñuy suivre di ñu xool à chaque fois ci suñuy woy mënuñu def lépp naam waaye bu lu ñu mën a communiquer artiste bu ci nekk rek wala message bu ci nekk fi sa xel toll ci sensibiliser la jeunesse nous retrouvons wu repère xalé top, mak mak gone ñu nekk sommes say nam war nañu waxante deug nak dañu am sunuy valeur kerse gi na na discipline na avons si ndax buñ fi avons dem ci réewu qui yi tubaab yi nous yar te duñ leen ko wax ndax dañ la fi dinañ la amende 100 euros foo gaare te waro fa gaare dinañ la amende 100 euros boy xuloog nit amo droit dóor ko ndax boko ko ah non doto ko defati et que ñun buñu démé fofu dañuy suivre sen éducation et que ñun buñu ñu suñu réew on fait di n'importe quoi way nan len dello si suñu xel dello buum ci mboy mboy gi moy yar yermandé ak aussi Don Ben ndax nak mbolo moy doole. donc ki nga xam euh, question bobu mang la koy bolé ak suma rak mon jeune frère Mamadou ndax laaj na ma ñaari question benn bi par rapport ak yek yek donc sama point de vue loolu la ci benen bi ngay wax aussi pour ma def featuring ak suma rak Balago, mais loolu c'est avec un grand plaisir c'est avec un grand plaisir vous savez pourquoi Yalla dafa dogal Yalla dafa dogal ñom fallu mi fekk fi ñom yuusu ñu jox leen cër jox respect man fa Yalla nako Yalla yeureum xare ko aljana duñ ko mukk di ñaanal Abdou Guité Ndanan, Yves Abou ñu ñëw fekk fi ñoom fàllu ñu nekk sunu ay mag ñu jox leen cër nekk seeni ndongo fàllu nee na sama ànd ak moom def na vingt ans bàyyiwuma ko ba tey grand yow duma la mës a bàyyi à vie yow yaa ma njëkk dugal avion yóbbu ma Amérique jamono yooyu ah yomb na trop nga écartement dañ daan def ten hours de New York à Chicago fàllu ñu jox ko escalade bu mag Michael mu ne ana pap ana ami ana Alioune kase toog leen ci ginnaaw grand mënoon nga ñu bàyyi ñu dugg ci bis bi mais danga ñu porter uuf ñu mënoon ngay jël say vol yow kese di dem fu ñu war a jëlee avion ñooy toog doo de mukk business da ngay ñëw nekk ak ñun fu nu war a tukkee booy jël booy jël bu ñuy jël saret yow da ngay jël saret ànd ak ñun et jamono yooyu sama rêve moo nekkoon tukki wane sama aar jéggi frontières yi loolu moo ma gënal milliard tey su ma demoon bay tibbee ndijoor ndijoor ak càmmoñ reconnaissance boobu duma ko mës a fàtte si yow du ma la mës a bàyyi suma rakk yooyu nag yàlla dogal ñu nekk sama ay rakk ma uufoo leen li ko dalee ci waali siidi ñeneen ak ñeneen su ma limee sax damay juum parce que léegi bëggatuma di lim ndax ñoom ñëpp samay rak lañ su may tëgg soire dañuy bàyyi li ñuy def ñëw suñu ñëwee ma ne leen Abbas ne ma booy sa boy yi ñëw nañ ma ne leen yëgal leen ñu ñëw dama leen di jox micro taxawee na le ñu woy ba doyal wala bu ñu ñëwee jël seen téléphone teg ko ci baaf yi liggéey suñu xëyee woo ma mais grand démb dañu kontaan ma ne leen lépp yéen ko moom sama répertoire def leen ci lu leen neex comme ni ma ko Mamadou Lamine Maïga di waxee wala amaat dañ ma naan sunuy woy yaa ko moom morceau boo ci bëgg def ko du dañ benn morceau Maïga la du dañ du dañ du dañ du dañ du dañ dañ dañ du dañ ko def loolu eram la ak yeneen ak yeneen kon ñoom loolu rek laa desel ku ci santir sentir ne bëgg naa ak pap welcome ñëwal ñu dugg studio ñu woy ndax Sénégal kontaan ndax loolu mooy Sénégal donc question boobu am lu ma ciy tontu euh, sama sœur bi nga xamante ni nag Aminata comme li la Modou Mbaye wax rek morceau géwél yi mom ak géer ñi ñun géwél yi ñun pëlloo réunion ne ah pap war ngaa woy ñi léegi kuy seeteti sa géer jarul ngay dem di acapella wala nga naan naan fër yoo ñuwaalu gay naa ko daan jël yóbbaaleel clé bi rek teg jàpp sa ñàmbur apeex maa lox loolu waaw nan dekkal magnétophone maa lox loolu def ci batterie yu mag gàddu voilà donc pour l'instant loolu la